ndax kenn ku ci jël kàddu ku nekk mu ngi ko jël ci sunu kàddu di leen xamal ni ñoo ngi sant yàlla ci lépp nag ci biir ak ci biti di gërëm yàlla it ci lépp si biir ak di gën a doyloo sëriñ bi tey yeesalaat sunu jaayante ak moom ci biir ak ci biti di ñaanal sëriñ Muntaxa mi ko fi nekkal yàlla dolli ko fee bàyyi te ko ak wér waaw di leen massa si coono yi it muy yéen ñi nga xam ne yéen a teew ak ñi nga xam ni ñoo nekk sa biti bëggoon a teew te mënul ko ak ñi nga xam ni dañoo nekk sa biti te njëkk leen fee teew ñoom ñëpp ñoo ngi leen di masawu si coono yi te di leen sant day mel ni fukki fan a ngi nii yoo xam ne noppaluwun benn yoon fu nekk nit di fa bàyyi ko di ñëw di masawu ci natt yooyu nga xam ne déggeesoon na ko tam xew jamono ji mboolem ko fi ab tànk mos tege ñoo ngi koy sant sa loolee. di ko xamal ni ko yëg nañ taxawaay ba bu baax a baax may wax ne daanaka tarixa yi nga xam ne ñoo nekk si lislaam ji ëmb wala tarixa yi nga xam ne lislaam ëmb na leen ci réew mi tarixa yëpp euh, ndaw bàyyikoo na fi ñëw ba si jamaatu du Rahmaan ñoom it am nañ si ab taxawaay day mel ni mboolem ku lu baax ñor rek fan yi noppalu loolu nag day mel ni suñu jëmm taxut ñu koy def yàlla ak yonante bee tax ñu koy def ak sëriñ bi ñoo ñooñee tax ñuy def loolee nag gis nañ leen te it eh, innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu ixwa bayna axawikum wattaqullaaha la'allakum turhamuuna day mel ni lii gën naa tax ñu gën a dégg aaya boobee ci biir ak ci biti mbokk yi sore ak yu jege yëpp waaw kilifa yëpp ku fi teewul rek si fukki fan yi weesu sa ndaw teew na fi lu mat ndaw loo xam ne fu la teewal ñu xam ne fonk nga foofee nawloo nga foofee am nga foo teg barab boobee kon loolu ñoo ngi leen siy sant bu baax ñu nekk si waxukaay yeeg ñëpp it ku nekk rek di am na ñoo xam xëy na mosuñ noo gis am na xam ne xëy na it mosuñ fee ñëw ku nekk rek di wax uh, lam jàpp ne lu rafet la te loolu mooy melokaano aw jullit kon ñoo ngi leen sant bu baax te di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla yooyu ngeen doon def lépp sunu boroom def ko muy aw yiw di leen xamal tamit ni fan nekkoon démb ak barki démb ci liggéeyal sëriñ bi rek foofee tey jii leen fa gën a nekk rawateet na si wàllu jàngale alquran daaree alquran yi nan ko nase woon rek te fas ko yéene woon noonee noonu rek leen fas yéene mu wéy daara jun liggéey ba mu samp rek ñu liggéeyaat neen daara sawet sawet ga ba keroog ñu fiy jógee loolu fas yéene woon dara delloo ñu si ginnaaw te yaakaar na ni yàlla dina si def ndimbal ginnaaw bu loolu wéyee ñi nga xam ne yàlla daa dogaloon waaw moo xam pexe lañ koy tudde moo xam luñ ko mën di tudde ndax la sa biir lépp yàllaa koy xam waaye ak nun ko mën di tudde rek waaw ña sa gënoon a fésal seeni kàddu gën ko sa ñaawal moo xam ñu sori lan moo xam ñu jige lan ñoo ngi leen ñoo ngi seereel yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi di leen seereeloo yéen mbooloo mi fi teew ni kenn kon siy topp lu weesu bisub tey bii dara amut jéggal na leen lépp ngir jëmmi yàlla jéggal goo xam ne it lu gëm ci suñ xol la luñ gëm ci suñ xel la laata ñu koy wax ci sunu làmmiñ lu dara lu ñu si buma waaw ñoo ñi nga xam ne it yoon toppoon na leen ba mel ne danoo nekk si barab euh, nit boo njabootee am loo xam ne day am ci sa kaw am na loo moom waaye day am loo xam ne njaboot gaa ko moom këyit yi leen dugaloon dugaloon foofee ñu dugg waaw lépp loo si xam ne sama àq la fan war a jaar ba yooyee dañ des na ko def ndax su ma sañoon su tey bi kenn ku si nekk si ñooñee si kër euh, këru njabootam lay fanaani kon ñoom ñëpp jéggal nañ leen jéggal goo xam ni du ngeen gisaat dara lu koy weddi ci biir ak ci biti ñi nga xam ne yàlla daa dogal ñu déggoon ay wax xamul nu wax demee xamul nu laytaayu sa wax waaw seytaane man leen ba yëkkati ñoom it kàddu yu ñaaw doonte mësul noo gis mësul noo xam ñoom it kàddu yooyee ñu yëkkati woon te jëme ko ci suñ jëmm la say suñ àq lépp jéggal nañ leen ko ngir jëmm yàlla loolu rek moo doon kàddu yi bëggoon a yëkkati kon nan xam ne bis ni ki tey daal amul kenn koo xam ne doon nga wax lu ñaaw wala nga koy def lu eh, si lu ñaaw moo xam ku jige nga moo xam ku sori moo xam ku nu xam nga moo xam ku nu xamul nga ci mbir mii jógoon te tan tan deseelati la la jenn àq jun lay topp jéggal nañ la ko li wax ci wàccillaahi laa loolu nag yàlla moo si sunub seere ñi jógoon nag loo rafetlu nañu wax ko naan xam ne yàlla umpalewu leen xam na leen te it lan say séentu yàlla mën na leen ko saa defal ñoo ngi wu nag ñëpp coona ndax fan yi kenn noppaluwut ñoo ngi masawu yëpp coona ndax fan yi kenn noppaluwut loolu lépp nag day wane ne suñ mu taxul leen a jóg ndax xëy na bu dee suñ jëmm moom day mel ni bëriwul solo waaye xëy na jàpp ni ñu ngi liggéeyal lislaam waaw rek moo leen taxawoon a jóg te liggéey boobu ñuy liggéeyal lislaam ba taxoon ngeen di jógit da ngeen xam ne fas yéene wuñ saa dellu ginnaaw sa leen fas yéene nekk ban fiy jógee kàddu yooyu laa bëggoon ñëpp yóbbaale ko fan jëm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bisimilah bisimilah ñu ñaan sëriñ Mbàkke ñaan ku bàyyi sëñ Mbàkke mi ñaan. ku nekk bëggoon na ko am. amiin amiin moo tax ñëpp di wax. amiin melokaan yu mel nii. waaw lu dóor sëñ Tuubaa moo tax ñëpp di wax mag. waaw fekkoon keneen la danaan moom du kenn du jar ñuy wax. waaw li nga mel nii rek moo tax ñëpp di wax. jërëjëf baax nañu baax amiin baax na jërëjëf. sëñ bi nee ñu àgg ca jàkka ji ñu julli ji.